Leral sans limite ginnaaw bi ñu leen di kontaan si ànd bi ngeen ànd ñun alors dellusiwaat nañ wala sax seet si nañ ki nga xamante ne moom monsieur Charles Faye di journaliste analyste politique ngeen min ko lool ci kër gi tey ñu ñoo déplacé wu ñu seet si ko ngir sax moom wax waxtaan actualité bi ni mu ko laajee mais balaa boobu nag euh, damay euh, wax nii dañ ci ànd ak waa 2A TV ñoom suñuy rakk lañ di nuyu baax a baax sali ak caméramanam mais balaa boobu Charles waaw Ousmane maa ngi bu baax baax di aussi nuyu ak euh, ku mu waa 2A TV c'est comme je le dis euh, mutualisation la ça c'est très bien di nuyu aussi ñoo xamante ne ñoo leen di seetaan ak waa Géejawaay ak waa Géejawaay alors euh, comme ni ko war a sax ubbee ci waxtaan mooy euh, li nga xamante ni moom mooy ñi war a dem di récupérer ji seen i fichier ci wàllu parrainage bi dañu constaté sénégalais yi nga xam ne dañu dem dafa bari trop trop trop yow ñu dégg la ci wax nga ni c'est de yi waaw dama si benn émission dama ne égocratie c'est un néologisme bon néologisme la égo bon mooy loo xamante ne euh, ñun ñëpp ñoo ko am ñëpp te dafa baax aussi dafa du lu bon lu baax la mooy la représentation de soi wala la conscience de soi nga xam ne da ngay dem ba dikk valoriser bëgg valoriser sa bopp par rapport à la société différemment des autres personnes kooku mooy l'égo mais nag problème fu muy commencer compter mu commencer am mooy nga ne yëpp yow la égocentrisme yëpp yow la wala nga ne budul man du kenn égo surdimensionné te donc bu ma demee ba xool loolu démocratie am na wax nañ dëgg mais bu ma demee ba gis cent vingt six ñuy wax cent quarante di dem ba si ay deux cent damay ne ñit ñi lal la bëgg est-ce que am nañu capacité ga xëy na am nañu am capacité mais ñu bëri peut-être dañu bëgg a feeñal seen bopp won seen bopp bëgg a te boo demee si ñuy wax la pyramide de Maslow effectivement bu ñu demee si cinq milliers am na niveau bu ne nit ki xëy na si àddunam am na lu muy bëgg fu muy toll te ñu bëri si lii xëy na dañ bëgg a feeñal seen bopp mais aussi traite la ñëpp xam nañ ko présidentielle après c'est des coalitions après c'est des traite la marché la aussi marché la aussi. pour defar si CV. waaw xam ne ñuy bëgg wane ni boole ki seen CV man participer woon naa ci élection tel waaw xam nga ne participer nga dafa am participer da nga participer si parrainage. après euh, conseil constitutionnel na la est-ce que c'est bon wala c'est pas bon ak yu demee noonu participer nga bon deux mois mais sa boo ko bëgg a defar en deux mois maanaam euh, fii ba décembre boo ko bëgg defar lu gàtt aussi ah surtout pour ñoo xaman ñoo xamante ne kenn xamu leen. nombre de personnes bi ni mu importante bëri trop est-ce que jàpp nga ni ñu bëri si ñoom dinañ mën a remplir fichier euh, fichier de parrainage bi est-ce que jàpp nga ni dinañ am assez de signature. ah ben j'espère pour ñoom parce que bu fekkente ne yaa ngi dem parce que y a des options il y a des options euh, option lu mu tudd parrainage bi mën nga def euh, option citoyenne parrainage citoyen mooy da ngay dem à la conquête des citoyens ñoo waxtaan ak ñoom pour ñoom ñu parrainer la bon maintenant il y loo xamante ne te ko si yoon muy entre euh, quatre quarante et quelques mille à un peu plus cinquante donc je pense que y a des choses yoo xamante ne nit ñi buñ bëggee dem ku bëgg a jiital Sénégal war nga am liggéey boo xamante ne da nga koy def au préalable pour mun am lolu loolu tam day wan yow yaay kan loolu nit ñi pourquoi ñu lay confiance n'est-ce pas euh, lan mooy sa yéene lan mooy yaakaar nit ñi est-ce que tu es la rencontre de ces gens bon il y a d'autres options mooy les options yoo xamante ne assemblée nationale les élus et kooku ça va aller dans d'autres considérations parce que dañu fàtte que par ailleurs il y a quand même des dispositions dans les textes décret sera pris par, la, le président de la République. Décret sera pris. Moi, qu'on se projette au futur et donc donne au président de la République le, le, le, le choix. Et donc, il devient la clé. Maintenant, j'espère que ces 200 personnes qui partent, moi, j'aimerais bien que aussi ait un parrainage nous savons que bon, voilà quoi. Bon, ben, Mais bizarrement, nous avons également qu'une bise, voilà, en tant qu'artiste aussi, euh, est-ce que a avons une remplir ah je sais pas. exemple ci Youssou Ndour. pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas s'il y cent vingt six cent quarante six pourquoi pas Queen Biz oui. donc yow amoo si problème par rapport ak ñeneen ñi gis ni voilà. xam nga il faut du tout pour faire un monde et le monde là aujourd'hui quand dama la il y a cent et quelques partis politiques a trois cent on devrait avoir et quelques candidatures. ou bien alors nit ñi dem créer ay coalition mais peut-être que les gens foog nañu que ñoom fu ñu toll nii boo leen joxee Sénégal dañ koy diriger war na yomb si ñoom. Ayib Daffé mi nga xamante ni moom mooy mandataire bu euh, Pastef bi mu demee moom jox ñu ko naka nga ko gisee parce que ñenn dañu jàpp ni euh, DGE habilité wul en fait pour xool naan ci dafa bokk. waaw bon DGE dafa waaw DGE dafa am fu mu bokk. démembrement la du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, le 29 ou 30 septembre, non, euh, juin, autant pour moi, bi, euh, bi passé, bi les juin là, je ne me rappelle plus, dafa dissoudre par décret teg ko si kaw ay texte yoo xamante ne ñu ngi ko voté assemblée nationale defe naa dañ ko voté quatre ñu ñëwaat si en 1985 DGE bokk ci ministère ministère dissoute DGE mënul nangu candidature ba c'est-à-dire c'est cohérent cohérent maintenant nag dafa am loolu cette cohérence là yow tu n'existes pas loo bëgg ma lay jox comment nga bëgg ma jox ku dul exister ma jox ko loo xamante ne il n'existe pas mënu ma ko ma jox c'est la première chose maintenant on peut avoir une autre lecture juridique mooy que le cas de Sonko qui en prison arrestation dans le cadre d'une affaire opposé ko à un élément de la gendarmerie mais arrestation boobu dafa topp loo xamante ne mooy un procès ñu jugé ko par contumace te article 307 du code de procédure pénal dafa ne ak ku mu munti doon bu ñu la jàppee bu ñu la jugé par contumace ba fu ñu la fekk Sénégal fu mu munti doon bu ñu la jàppee ne jàpp day anéantir procès ba bu fekkente ne yow ñëw nga ne man j'acquiesce am ma mooy maanaam lu ngeen ma daaneel nangu naa ko nga dem tëddi kaso mais bu fekkente ne du loolu nga def opposition au greffe bind lu ngay def contester affaire bi ñu ne dafay anéantir sauf ko jàpp anéantir ou pas dañ lay téye kam kaso sauf que aussi ñu ngi la jàpp pour leneen donc leneen loolu da war a dem ci lu ñuy wax jugement du dëgg war a dem ci jugement jugement mu am benn jugement appel cassation léegi du point de vue juridique il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées mais kooku débat ñoo xamante ne c'est des spécialistes du droit ñoo ma ko gën a xam ñooñu buñ ko toogee wax déglu laa mën a def n'est-ce pas mais sur l'affaire de DGE DGE dafa bokk ministère de l'intérieur d' euh, mais dañu gis également euh, ñoom waa Pastef fii ñenn ñi dañu leen doon wax wàllu plan B ñoom waxuñu si mais dañu dégg jékki-jékki dernier moment ñu sentir ñu gis ñoom seen communication dañu bëgg a taamu quatre ba cinq personnes yi nga xamante ni ñoom la ñu choisir ngir ñu bokk. xam nga politique radicalisme c' est une option philosophique radicalité radicalité c' est de la rigidité bokkutul. entre radicalisme ak radicalité bokkut bokkul de option philosophique mun naa changer toog waxtaan mais bu ma defee euh, radicalité mooy dama rigide te rigide lu ko ëpp doole bu daanu kam day toj gis la politique c'est comme le c'est comme le roseau roseau da koy teg day plier mais du damm ngelaw bi bu ñëwee mu plier ba day jëlaat sa place donc la politique c'est des vérités du moment c'est des dynamiques du moment démb lii laa def ok démb la woon tey si moment bi lii laay def je pense que euh, man ba may wax plan A plan B plan C maa ngi ko wax depuis daaw jàkkaarloo laa ko wax wax naa ko wax naa leen ko yéen defe naa wax naa ko feneen pour man loolu mooy politique maintenant la radicalité elle nous amène nulle part c'est une ça nous ramène nulle part. leen fenn yóbbu ñu fenn radicalité d' accord alors gis nañu avocat Ousmane Sonko ñuy def recours euh, ci radiation beeg yooyu ak ni ko seetee si liste électorale ñoom bëgg nañ ñu annuler loolu ndax nga ko. waaw c' est normal c' est tout à fait normal ça veut dire nous sommes sur le terrain di droit donc ñoom war nañu mën a toog ñu ne bon euh, euh, arrestation Sonko bi euh, dafay anéantir euh, le procès c' le mais wa war buñ ko waxuloon sax man dina ma jaaxal. parce que il se repose sur quelque chose boo xamante ne qui est un qui est une c'est c'est c'est l'article 307 du code loolu du code de procédure pénale s'il se repose sur ça que moi je lis ça maintenant nag c'est vrai que le droit codifié système et tout ce que l'on veut mais c'est écrit dans une langue que je comprends te noonu laa ko gisee bu ñu waxee loolu dinaa bu ñu ñëwee itam di teg ci kaw yoon qu'il faut revoir tout ça et tout je dis qu'ils sont dans une logique du droit et ça pour moi c'est la vitalité du droit même si le droit est mais voilà pour moi il n'y a pas de souci de ce point de vue là. d'accord xam naa d'accord euh, Charles tout à dañ doon wax ci mbiru euh, li nga xam ne moom mooy le fait que ñu recalé Ousmane Sonko ngir du jot li nga xam ne moom mooy euh, liste de parrainage yi fiche de parrainage yi ñu ngi ñu ngi rappelé wu en 2019 ki nga xam ne moom mooy xalifa Sall moom ci boppam dañ ko condamné woon kii aussi tamit ki nga xam ne mooy Karim de la même chose te ñoom teewul bi ñu demee ngir jot seen fiche de parrainage dañ leen koo jox Euh, bi ñu demee ba ci euh, conseil constitutionnel si lañ leen soog a recalé ndax xam nañ ne ñoom bokkuñu ci list électorale yooyu par rapport ak Ousmane Sonko bi nga xam ne jamono jii mën nañu ne demaguñu ci li nga xam ne moom mooy euh, conseil constitutionnel jamono ji ñu jàpp ne wax nañoo mën a jot li nga xam ne moom mooy fiche ele fiche li nga fiche de parrainage ndaxte conseil constitutionnel moom moo am droit décider ci sooru Ousmane Sonko. c'est que le ministère de l'Intérieur n'avait pas dissous le parti de de parti de comment dire de, de non de Khalifa Sall Karim ici mais je c'est ça que je suis surpris mais très surpris par comment on peut ignorer de ce fait là une cohérence comment se fait-il que man ma mën la dissoudre nga ñëwaat si man am loo may laaj c'est-à-dire euh, ou bien mën maa comprendre tout dara ou bien ñeneen di mais je dis le ministère de l'intérieur par décret dissout un parti ça veut dire quoi ça veut dire autre chose aussi existé wu loo nga bëgg a au nom de sa parti am lu ngay jënd existé wu loo ñëwul pour demander euh, fiche de parrainage beneen coalition moo ñëw son 2024 donc c'est pas la même chose. ok là on a un problème Sonko 2024 qui vient qui a un problème avec la justice tu me dis donc on tombe sur un problème juridique une coalition on tombe sur une on tombe sur une coalition quand on arrête il faut bien aller voir le décret qui dissout le parti. le décret qui dissout le parti, le parti, quand il est constitué, un parti est constitué, ses constituantes sont consignées. Il y a des noms. Il y a des noms. Ce pas un parti fictif. Mieux, ce n'est pas un parti, pas, je dis, ce n'est pas, un parti abstrait. Ce n'est pas un parti, comment dire, moral. C'est des personnes qui constituent. Attention, on s'arrête à la première ligne, on ne lit pas le reste. Attention, on a dissous un parti, mais qui, qui est le président du parti Donc, c'est comme, comme, une société qui est en faillite. Une société qui est en faillite. Que dit la, que, que dit le loi, que dit la loi Tu peux on, faillite, nous, liquider ça. On, tu, faillite, liquidation de la société, nous avons créé une société. Mais la loi, nous avons le Vous avez créé une société. Nous avons en faillite, nous avons en liquidation. La loi, nous avons le dafa lijjante mbiru loi lu mu ak lu mu mu joxe fiche lañ ko demandé. encore une fois moi je dis ou c'est moi qui me trompe ou c'est moi qui me trompe et si si je me trompe je me serais planté lamentablement mais il y une cohérence je dissous ton parti nga ñëw ne ma da ngay bokk mais tom parti c'est pas abstrait dafa am constituant vu vu vu vu mais yow bu ñu dissoudre sa parti yow mën nga ñëw ne dangay ngay politique après il y beaucoup de choses yoo xamante ne qui relèvent pleinement du droit et moi je constate quelque chose quoi ça veut dire que gis nga il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait mais c'est d'accord mais euh, c'est très grave c'est très grave ce que tu dis il y non dafa am laaj boo xamante ne dafay wan e que da nga xam wala xamuloo dama ne dans la démarche elle est cohérente amul incohérence maintenant on est arrivé à un moment dans ce pays où on est dans des situations de contradiction très très très fortes où je suis là où tu es d'accord ou n'est pas d'accord on n'est plus maintenant dans la réflexion dans de, dans la réflexion qui voudrait que on aille beaucoup plus loin même en se trompant le ministère de l'Intérieur a prononcé quelque chose maintenant on peut dire que ce qu'il a prononcé n'existe pas euh, si ça n'existe pas ben je ne sais pas pourquoi il l'aurait prononcé et le parti est constitué si attends c'est pas un parti on a dit on a constitué un parti mais on ne sait pas qui est dans le parti on ne connaît pas son président On ne connaît pas tel, on ne connaît pas tel. Donc, à partir de ce moment-là, les gens commencent à s'asseoir et commencent à parler. Moi, j'aimerais bien que les avocats viennent s'asseoir. Mais qu'on me parle de manière. Ça veut dire que moi, on lance, on, moi, je suis pas de, moi, je suis pas un chien à qui on, on lance en os et je mords dedans comme on fou. Voilà quoi. Maintenant, je peux me tromper, Ténita est trompé. Parce que tout trompé. On est doté de raison. Et moi, je reste sur ma raison. Maintenant, je dis, il y a un véritable débat juridique qui se pose. Parce que Sonko qui est en prison, on parle d'anéantissement de son procès. Pour moi, il est évident que Sonko, quand tu l'amènes en prison. Quel que soit l'endroit où tu l'as pris, pour quel motif que cela soit, ça anéantit le procès. Euh, pour moi, c'est clair. C'est l'article qui le dit. Maintenant, maintenant, il y a, même s'il a un million de procès encore, même s'il y a un million de procès, mais nous sommes en situation où les procès pas, euh, ils ne sont pas encore là. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de Maintenant, je dis, est-ce qu'il ne peut pas se présenter depuis, la, depuis sa cellule Ça, c'est des questions sur lesquelles je me dis, ouais, que ça, je peux l'entendre. Mais est-ce que amuñu droit amuñu droit yow ma ñëw ma tas la après nga ñëw di ma ne ay kii mais dama lay xoolaat. mais mais. voilà euh, baal ma àggale bi rek mu jeex <laughs> voilà ci euh, plan B bi nga xam ne Ouzin mi ngi koy wax tout à l'heure ci cinq candidats yi nga xam ne euh, jamono ji Euh, jot nañu seen fiche de parrainage euh, ci waa PASTEF ex PASTEF sax laay wax euh, jamono ji ñoom jot nañ seen fiche de parrainage supposons tey jii nii ñu dem ba conseil constitutionnel daal di valider seen candidat ñoom ñëpp ndaxte jamono ji sax mun gëwmal ne sax dinañ valider seen candidat parce que mënuñoo mënuñoo constitué wu constitué wu maanaam ay candidat indépendant parce que bi ñu dissoudre PASTEF yàggul donc mënuñoo constitué yooyu mais tey demee ba ñu valider seen candidature ñoom cinq ñëpp euh, yaakaar nga ne dina am kenn ku dem bàyyi moroomam. ba may wax plan A plan B plan C plan D yàgg na tout à l'heure je parlais de radicalisme de radicalité aujourd'hui bu amee quatre cinq ñuy dem lu wër te wër mooy quatre cinq yooyu. bu ñu amee seen cinquante et quelques mille wala seen quarante et quelques mille ñoo xamante ne amul doublon boo ko multiplier par quatre ça te fait à peu près deux cent et quelques mille personnes donc déjà tu as une carte am nga lu bu demee kooku moom moom deux cent et quelques mille donc il y a un travail d'occupation de l'espace c'est une stratégie mais il est évident que ñoom kat mënuñu dem bokk présidentiel parce que dañuy ça veut dire que dañ leen di dóor pourquoi bu ñu demee kii ku nekk war a voté kii donc deux cent mille ñu am deux cent mille mu tas seen biir alors que kenn mënoon na ko jël donc y loolu mooy égo man je fais gis nga tey ñu bëri ñu ngi wax xam nga politique nee naa du radical du du il est arrivé un moment où les gens doivent savoir lire. Il y a des sacrifices personnels qui ont été faits maanaam dama bàyyi lii dama def lii pour mën ma mën ma bàyyi lii le président Macky Sall mënoon na nekk mënoon na la troisième mandat avec un Sonko en prison mënoon na ko mënoon na ko xam nga day metti tët Sonko ba pare ne damay dem présidentiel xam nga day metti donc y a un sacrifice à la limite mun nañ ko jàngee noonu même bu ne mun naa si jum mun naa ko jàngee noonu dafa sacrifice boobu mais kii dinaa ko téye du dëgg kii ne bon ok man la wala du dara mais boo toggee man la wala du kenn mais si kaw lan nga koy teg xeex mais boo demee si mbedd ba kottu kan ngay xeex ay say mbokk ak soldats yi ak militaires yi ñoom dañ lay bàyyi ngay xeex après bu xeex bu jeexee lu ñuy def. yow yaa dem du palais non dañuy del pouvoir bi ne la bon yéen civil toog leen ni parce que yéen moom da ngeen doy waar donc sacrifice moo jot et dans le sacrifice et je l'ai dit je l'ai dit je l'ai redit le Sénégal est plus grand que moi le, le Sénégal il faut qu'on le Sénégal est plus grand que nous il ne notre ego soit celui plus grand que le Sénégal le Sénégal est plus grand je l'ai dit avant et donc c'est le moment des sacrifices c'est le moment des sacrifices euh, xam naa fi ñu daanelee waxtaan bi rek juste mooy euh, sa collègue en fait journaliste Cheikh Yérim Seck coow li xaw a bari si moom mais li ci xaw a doy waar tuuti mooy sa beneen collègue journaliste muy Astou Dione euh, bëgguñu ci sori trop mais wax yi kàddu yu ñaaw nit ku dem ba marié ak keneen nga commencé di génne ay yu ñaaw di ko si moom est-ce que gisoo ni Astou dafa war a porter plainte en quelque sorte. bon suma yoon newu ci dafa am waxu ak waxu kii man yooyu suma yoon newu ci yooyu du bopp nit ñi waruñu xoolaat seen bopp en fait ci côté boobu nit bu nekk si surtout pas délai sànq ma posé ko parce que journaliste nga wax sama man sama bopp rek doy na ma sëkk ak suma waa kër nit ne réglé lu muy réglé lu mu dee dee waxu réew euh, doxalinu réew ma yéene su ma yaakaar ma yéene pour Sonko mooy fu mu ne mu jóge fa su ma yaakaar mooy que sénégalais désigné président boo xamante ne moo leen jig pour at yi le reste les trucs de famille les histoires privées là ce sont pas bien. donc bu joxee consigne est-ce que jàpp nga ni dina am poids. lay lay la ku mu ku mu jox. cinq personnes kan lay choisir est-ce que tu penses que dina choisir Guy Marius Sagna. faut faire attention y a l'ancrage politique. il ne faut pas oublier yeew yi am na ñeneen ku mel ne Malick Gakou foo ko teg dama ne Mamadou Ndiaye mooy doon président Sénégal 2024 Mamadou Ndiaye kenn xamu ko dama ko jox tur noonu rek Mamu maanaam Mamadou Ndiaye du xëy na du Sonko si nit ki mais esprit Sonko lay dawal léegi nañ xool man Malick Gakou dem ci taxaw Malick Gakou PS euh, mu jóge fa ak Moustapha Niass 99 si je ne me trompe pas ñu nemmee ko ministre mu démissionné 2013 Macky Sall te jàppale nu mu tudd ma euh, non euh, Moustapha Niass jàppale Macky Sall mu démissionné de l'AFP 2015 nekk ministre du commerce mu démissionné il a démissionné en 2013 ministre di commerce démissionné en 2015 de l'AFP donc bañkat Sonko bañkat la donc moi dans l'esprit je fais attention à ce monsieur là ce monsieur là mu am ancrage Sonko am encrage fan Ziguinchor moom moo am encrage Guédiawaye Sénégal Ziguinchor du Sénégal Ziguinchor la mais va voir combien de population tu as à Guédiawaye et je te dirai on te dit mais je veux je veux dire d'ancrage je suis convaincu man Sonko boo présidentiel bi waaw day metti pour gars je pense que Sonko avait de larges chances d'être élu mais dans dans la gestion en politique y a eu beaucoup de choses mais bu dee Sonko nekku fi kan moo ko gën a jege si bañ si esprit kan la da nga ko xam. waaw oh, de la même manière que j'avais parlé de Boun Abdallah Dionne quand j'en parlais personne et puis aujourd'hui mais Malick Gakou nga nii nii bare bayre bi dafa des parce que au delà de trajectoire bi ñu xaw a nduróole moom Ousmane Sonko mais bayre moo moi je suis un homme cartésien. ay bayre ay yu demee noonu ku siiw la xam ah Malick Gakou boo nee yow yaa ko wax Malick Gakou taxaw nekk siiwul ah yow yaa ko ñemee <laughs> kontaan na ci <laughs> xawma Amadou euh, am te léegi aussi tamit euh, fal Amadou Ba nangu nañu fal des mandats loolu c'est normal que Amadou di wax si wàllu continu continuité di laaj nit ñi nu continuer ak ñoom parce que liggéey nañ fi moom mun na toog wax ko parce que mënul toog ne man ak Macky Sall c'est la rupture c'est pas possible donc il ne peut être que dans le cadre de la continuité donc y a pas de problème est-ce que euh, troisième mandat dafay taxawal troisième mandat patati patata on peut dire tout ce que l'on veut mais il y des jurisprudences quand on va Mauritanie euh, Aziz dafa tegal banque bi son candidat kooku tëj ko kaso on a vu Issoufou Bazoum ñu ngi nekk Issoufou loxoom dañul si coup d'état bu fa donc ça c'est l'avenir mais par contre là où je suis d'accord avec elle moi je ne peux pas comprendre contribuable bu mënuma comprendre que le président de la République nomme désigne Amadou Ba comme le candidat de Benno Bokk Yakaar et que Amadou Ba reste premier ministre par éthique il devrait démissionner et ça je l'assume je pas me faire euh, des amis mais je l'assume et tous ceux qui sont membres de l'APR s'ils sont dans des appareils pour des questions morales et d'éthique s'ils sont candidats à la présidentielle ils doivent démissionner de leurs fonctions Et vraiment, et ça, ça, le président nous le doit. waaw il nous le doit nag waaw parce que sinon dafay indi suspicion te man bëgguma toog man bëgg naa toog déglu Amadou Ba mu ne ma Charles lii ak lii ak lii euh, Sali lii ak lii ak lii Ousin lii ak lii lii laay xaar kii ñu toog ñu xool est-ce que d'accord nañu ou pas mais bu toogee ni nekk premier ministre ba pare di kii non je peux être suspicieux mais oui qu'est-ce qu'il non il doit c'est-à-dire kooku bon maintenant loolu laa wax nous on est là en train de parler de ça de ça de ça mais le véritable débat c'est une question d'éthique et de morale c'est pas que j'ai quelque chose contre lui mais monsieur Amadou Ba démissionné de votre poste de premier ministre et président de la République qui veulent la présidence eh bien qu'ils aillent sur le terrain et les Sénégalais décideront est-ce que ce sera la continuité ou alors ils vont changer mais ça Ça, c'est un débat pour moi qui est sérieux. Oui, hein, là, de parler de choses qui... Voilà quoi. C'est, c'est... man pour man huit à peu près au plus waaw moi je vois bien bien un jeune je vois bien un jeune pour montrer à la oui ça serait bien pour montrer à la communauté internationale Oui, un jeune, je vois bien une femme aussi. Je vois bien une femme, parce que quand même, c'est vrai qu'en 2012, on avait une femme, je crois. Dieng, euh, oui, notre grande artiste. Euh, je vois bien une femme. Et puis, euh, le classique. Le classique, moi, nous nous sommes. Maintenant, euh, on peut aller jusqu'à 10. Mais moi, je vois 8. Wow, je vois 8. Avec un Mamoudou Ndiaye président de la République du Sénégal entre guillemets. d'accord mais maa leen gën a kontaan tey kay boobu euh, seen mutualisation bi léegi nag xaw ma nag si chaîne YouTube bi kan mooy jël affaire bi parce que da am ko dina am koy ñàkk. wax mag ak rakk rakk ji mooy bàyyi ma. dama lay wax rek sax waaye affaire yaa dëgg nga def yow da ngaa jël dëkkaay sa YouTube moom daal dëkk comme na exploité YouTube am parce que sinon conflit lay nekk gars yi door ko avertissement. en tout cas nga ko affaire u mag Sali n'a rien compris <laughs> di nuyu waa Géejawaay yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di sen euh, seen seen sans limite autant pour moi sans limite euh, mu am ñu fa ne yoo xamante ne j'ai beaucoup d'estime ku mel na Aram Touré j'ai beaucoup beaucoup beaucoup d'estime pour cette jeune dame là qui est une vraie travailleuse il voilà et puis toute l'équipe quoi En tout cas, merci, merci pour tout. Et vraiment désolé si jamais j'ai dit des choses. Comme tout à l'heure, je ne suis pas un chien qui, prend un os. C'est parce que tout simplement, parfois, dans les sonne si il y a une façon yo xamantene dañ lay affaire yi et j'estime qu'on doit réfléchir beaucoup plus quoi waaw merci beaucoup nekkoon Ouzin nekkoon Salim nekkoon Sans Limites TV nekkoon 2A TV nekkoon Zeyna ci réalisation bi merci beaucoup jaajëf